c'est pour que yéen jeunes yooyu c'est pour que yéen jeunes yooyu ngeen doon yéen yéen a war a porter seen commune yéen yéen a war a porter seen commune ngeen am fierté ci commune bi est-ce que dé nga ma une minute une minute donc loolu laa bëgg mu doon contrat bi am suñu diggante bu boobaa ensemble d'ici quelque temps dinañu changer le visage de Ziguinchor te loolu bu ñu ko defee c'est pour vous les jeunes am nañu aussi ay programmes pour aider les jeunes à travailler te bu leen ma wax Jakarta rek moo fi am de d'ailleurs Jakarta bi problème la Ziguinchor ndax benn bëri nañu ñu bàyyi seen jàng pour Jakarta loolu danger la parce que amul mucc kan moo fi def Jakarta ba cinquante ans donc bàyyi sa jàng te am na ñu xam ne ils sont brillants mais bay jàng parce que am nga trois mille ou cinq mille par jour nga bay sa jàng dem Jakarta kooku erreur la Jakarta il faut ñu organiser ko parce que accident yi bëri na ay nit a ngi ciy dee ay nit a ngi ciy ñàkk te loolu tam il faut mu arrêter n'est-ce pas euh, ñetteel bi il faut ñu réglementer ko il faut ñu réglementer ko parce que Jakarta circulation la ku jóg rek kii ut sa moto Jakarta xamoo ko de la route doo takk casque ki ngay transporter du takk casque accident bu amee njaaxum am loolu est ce que mën nañ ko bàyyi mu continuer noonu donc il faut ñu réglementer ko mais bu ñu mënee Jakarta rek moo fi am yéen ñi ma gis nii yéen ñëpp ku nekk war na mën a génne ay barigo gerte. waaw waaw ñaar dafa tuuti boy ay barigo laa wax donc ñun am nañu programme boo xam ne. pour financer les femmes et les jeunes la mais balaa ñu leen di financer dañ leen di njëkk a former loolu mooy il faut ñu jàngal leen naka la ñuy defee business parce que ku musul def business soo yëkkatee cent million jox ko su demee un mois ñëw xaalis bi jeex na te du xam fu mu dugg foog ñu jàngal leen naka la liggéey boole kook am nañu programme yoo xam ne pour jeunes yi engagé wu ci mbay mi fi am na suuf boo génnee fii ci ba Adéane lépp ay suuf la ñun dinañ leen andil ay tracteur dinañu andi euh, ay intrant jiw engrais dinañu andi li ñu war a andi yëpp mais est-ce que yéen vous êtes prêts ngeen aj tuuti activités yi ngeen ñun ñu ngi dem def un mois et demi ci àll bi ñu bay loo xam ne bu ñu récolter dinañu régler suñu problème dinañu am lu ñu teg suñu loxo parents yi mais ñun dinañ mun a jëndal suñu bopp li ñu bëgg a jënd loolu su dee jeunesse bu bu développement dëgg-dëgg rek la loolu la ñu war a mais toog rek waaye nañ ñu defaral lii nañ ñu defaral laa non pas bi joxuma non normalement à cet âge là kenn ku nekk seen war na commencé am ambition ne war naa su génnul ci kër gi tam war naa dimbale paa bi am ngeen conscience boobu loolu nag liggéey moo koy joxe kuy jàng na jàng sérieusement bu vacance jotee nga dem def ay affaire xadmat ku bàyyi jàng demal jàngi métier wala nga dem bay wala nga dem defi loo xam ne mën na sax ba andi la ay millions loolu su ngeen ko defee suñ leen ko waxee c'est pour vous ndax man weesu naa foofu j'ai pas des milliards waaye mën naa régler sama problème n'est-ce kon léegi fi may daanele da ngeen jàpp benn semaine da di jàpp benn semaine boo xam ne da ngeen semaine bi ñun les jeunes de Djibok dañoo engagé pour semaine bi ñu defar suñu quartier bu boobaa su leen ñu ko waxee naa leen envoyé matériel camion yi dinañ ñëw taxaw tamit ngeen nettoyé ba mu set ñu ramassé yëpp dem jàmm na ñooy mais su loolu paree tam dañu bugg ngeen def sensibilisation ah, sensibilisation mooy oh, oh. foofu laay daanele de sensibilisation mooy ngeen dugg ci kër yi ngeen wax ak nit ñi mbuus yi sachet plastique yi ñu sànni mu gis ko fépp fii sachet plastique gis nga mbuus plastique bi nga gis ni il faut trois cent années trois cent années su xasee ba suulu ci suuf si il faut trois cent années pour mu détériorer wu mbalit yi ñuy sotti koñ yëpp yi ma romb maa ngi gis mbalit yi maa ngi wàccee sama vitre di xool rek donc loolu ngeen waxtaan ci ak paa yi ak maire yi surtout waxtaan ci jigéen ñi mais yéen tam ngeen def ci seen wàll kenn ku ne jël engagement ni dootuma dugg jënd dara jël mbuus bi sànni wala jënd carte crédit xoos sànni déedéet téye ko ba egg fi ngay dem nga dugal ko ci mbalit bi c'est des réflexes élémentaires mais dafa am solo sa potu gloria bi nga ne duma ko sànni ci mbedd bi dama koy téye ba egg fu ñu koy dugalee ma dugal ko noonu la ñit gis nga tubaab yi foofu rek lañu rawee tubaab du lekk banaana sànni du du du sànni du jël yére bu yàqu sànni marché Baneto boobu xam nga lan lañ génne ci li bloqué canaux yi ay yére ay bool ay njàmpe loolu tubaab du ko def est-ce que tubaab bi dañu war a gën a bëgg seen bopp kon il faut que ñu jël ay engagement ci suñu bopp ñun tam nga ne dootuma sànni papier nu mu tuuti tuuti feuille sax duma ko sànni mango bi duma ko lekk sànni ko ci mbedd mi su su jaree nga téye ko ba dem ba sa nga dugal ko ci mbalit bi nga def loolu tant que amuñu yooyu réflexe dafay jafe parce que sinon da ngeen di nettoyer une semaine plus tard mu mel ni mu meloon te ñi nettoyer ñoo ko tilimalaat xam nga loolu mooy gas suulaat ki nettoyer moom moo tilimalaat kon loolu xam leen ni mairie bi yéen la fi nekkal saa yi ngeen soxlee su ngeen jàppee bés da ngeen di def premier jour bi naa ñëw fii def deux heures de temps ak yéen ñu nettoyer la mairie est là pour vous waaye nag mairie bi mënul def yëpp chacun ci yéen na wax man lan laa ci war a def pour mbir mi sotti su ngeen ko defee rek dinañ ñu ëpp chance ndax ñun amuñu woon chance su am ay mag yu ñëw di waxtaan ak ñun nii yéen am ngeen chance boobu kon il faut profiter de sa ba yéen ngeen doon cette génération qui va changer le Sénégal loolu mooy li ma bëggoon waxtaan ak yéen mais la ci des yëpp xam nga football nag ma leen ko dàqoon gis nga.